arbitre baa ngay wax ñaari mbër ya li lamb nangu ak lamb bañ arbitre ma ngay wax ñaari mbër ya pare ngeen pare nga suuf la na double moteur bu rëbës avertir nañ fëgg nee na lu ma def avertir nañ fëgg la double moteur a ngi noonu arbitre bi suuf la na dimanche 7 juillet 2019 fii ci arène nationale double moteur bi mu fi mujj Naaru Sogas la fi bëral daan ko 3 la woon waaye Feugeuleu bi mu fi mujj Iba Mar la mujj jokkeel la daan 3 melo mépp na Double Moteur waxoon na ko signature ba su ma la dumul dem safara Feugeuleu na ko bàyyi ko waa Rebeuss nan taal ma xamu mat yi da nga fay dugg Assane Ndiaye noonu mooy dinañ promoteur yi. plaqué na ko ba mu def Pape Demba plaqué na ko mu def ñaabu ko la génn saako yi moom Feugeuleu est-ce que jàppante bi arrangé na ko mu Feugeuleu waaye Double Moteur Double Moteur daa noonu. ak Feugeula Feugeula bu Lansar nee na ma bëri naa ci stade yëpp ba mu des arène nationale la set laa fay bëree wax na dëgg bëri na stade yëpp Iba Mar Diop Demba Diop Léwo Bool bëri na fa moo ko Adama Diouf la woon Feugeula moo dajewoon ak Alioune Seye 2 Feugeula moo dajewoon ak Ndo Faye double moteur moo dajewoon ak Boy Niang numéro 2 double moteur moo dajewoon ak Lamset moo dajewoon ak ki nga xamante ni mooy Bébé Diouldé jël na Feugeula double moteur jàppante na ñoom ñaar subul moteur dafa signalé Feugeula door ko Feugeula a ngi door baa du ko door mu daanu double moteur Feugeula ña ngay xeex Feugeula door waaye double moteur jàpp na Feugeula door na double moteur jàpp na double moteur galaat ya wat na ca bët na ca téere na ca bët ya dindi ko téere ba wàcc na ca bët ya double ba wàcc na ca ba am lay da doon signalé Feugeula door ko jàpp ko Feugeula ak double moteur Pape Demba ma ngay làmb combat bi neex na ñoom ñaar ñëpp bëri nan ña ngay xeex Feugeula ngay dóor gàllaaja wadd na hey Feugeula arbitre nee na bëri leen ñu ngi bëri arbitre Feugeula dóoraat na ma ngay dóor day dóor génn Pape Demba Feugeula day dóor génn eh Double Moteur remis na ko Feugeula day dóor génn plaqué waat nañ ko génn nan saako ya arbitre nee na ñëwaat nan hey bëri nan Feugeula ak Double Moteur bëri nan mu rëbës Galla Dia ngay watu rek ba am na lay wàññi nan rëdd mu bañ am ñaar fëgal la double moteur ña ngay liwaatoo ñaar Galla takkoon yëpp dañ na ña ngay liwaatoo ñoom ñaar fëgal la bi mu la fi daan waaye double moteur bi mu fi mujj sokaas la fi daan fii la woon ci arène nationale bi Assane Ndiaye moo ko tëggoon double moteur daan naaru sokaas le 3 février la woon jooraan na jël na Pape Demba Fekala jël na jël na double moteur bal na ko waaye double dafa diis double moteur Fekala double arbitre nee na jeex na Fekala double moteur daan na ko la arbitre bi wax arbitre bi nee na double moteur daan na Fekala tey ndam rek wala dee barki Sëriñ Tuubaa champion daan xam nga ko waaw parce la laajoon tey tey lu mën dem ndam rek wala dee waa Rebeuss waa Rebeuss fay yàlla moom seen fay yàlla na yàlla fay sant waa Plateau. naan Sogas ak Feugeula nga tegle. waaw sant yàlla rek. lu ci des. mu ngi Anta na ñëw ñu bëre. wala Reug Reug laa soxla. mu ngi Anta wala.